ok alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewal gim ñu defal ñu daje ci ab néegam tiim ab téeréem di ko jàng rawatina mu dëppoog la nga xam ne mooy shahru ramadan di weeru koor ñuy dund tey suñu fukkeelu fan suñu boroom it dëppale ñu muy la nga xam ne mooy bisub aljuma bisub aljuma boobu nga xam ni léppam gëneel la doonte ne it bokk na lu ca boroom xam-xam yi doon loolee bokk na ci lañ gën a yaakaar ci waxtu yi nga xam ni suñu boroom da cay nangu ñaan yàlla nañ ca jagleel la gën ci ñun àdduna ak àllaaxira kon incha allah ñu ngi am tey suñ juróom-ñeenteelu daje ak saaru màgg wi di suuratu nisa ñu yëgsi ci ay juróom-ñeent fukki bi ak ñaar di 92 fi suñu borom di waxee wa ma kaana li muminin an yaqtula muminan illa xataa incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa taala mu ne wa ma kaana li muminin an yaqtula muminan illa xata'a du yey mukk ci jullit bu gëm yàlla muy rey koo xam ne daa gëm yàlla ne moom lu dul ci njuumte kese wa man qatala muminan xataa koo xam ne nag rey na ab ku gëm ci njuumte fa tahriiru raqabati mumina ku mel noonu no goreel jaam boo xam ne bu gëm yàlla la wadiyatum musallamatun ila ahlihi mu joxe ca it benn diya ca mooy ndàmpaay boo xam ne dañ koy jébbale jox ko ña nga xam ne ñoo ko yeyoo muy mbokki kañu rey illa an yasaddaqu lu dul ne mbokk yi ñoo wëlbatiku daal di koy sarxe bale ko فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن su dee nag daa bokk ci xeet woo xam ne noonu jullit ñi lañu waaye moom mañu rey jullit la bu doon dund ci seen biir fa tahriiru raqabati mu'mina kon ko ko rey na goreel rekk jaam boo xam ne dafa gëm wa in kaana min qawmin baynakum wa baynahum misaaq su dee ne nag daa bokk ci xeet boo xam ne seen diggante ak seen diggante yéen jullit ñi kóllëre dafa dox fa diyatun musallamatun ila ahlihi na doon ndàmpaay boo xam ne dees na ko jébbale ca ñoñom kañu reyal wa tahriru raqabati mu'mina gannaaw ba ñu daa mu daa di goreel jaam boo xam ne daa gëm fa man lam yajid ko amul jaam bum goreel fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayni ku mel noonu la woor ñaari weer yu tegaloo tawbatan min allah loolee nekk tuub guy ba woo ca yàlla wa kaana allahu aliman xakima ca yàlla day nekk na ci mustadeñ di aji xam lépp di aji xereñe wa man yaqtul muminan mutaamida koo xam ne nag daa rey ku gëm yàlla fekk ne moom moo ko tey fa jazaauhu jahannam kooko de payam mooy sawara xaalidan fiiha mu sax fa ba faw wa xadiba allahu alayhi yàlla dana mer ci kawam wa laana te yàlla dana ko rëbb wa aadda lahu azaban azima te yàlla nga koy waajal mbugal moo xam ne mbugal mu màgg la yal na yàlla musul ñu ci loolu mbokk suñu boroom def ne yeyul jullit bu gëm yàlla muy rey ku gëm yàlla ne moom na am lenn rek moo war a rey jullit mooy yéeféer ku gëmul yàlla rek mooy rey jullit yéeféer boobu it bu reyee jullit bu dee ca kéeféeram nga moom kéeféer la dee bu tuubee dugg ci lislaam it loolee da ngay gis yàlla subhanahu wa taala baal na ko ana ñaata ay sahaaba avant ñuy tuub li ñu rey ci ay jullit kenn xamul nu ñu toll am maa nag yow jullit nga gëm yàlla nga gis sa mbokk jullit bu gëm yàlla ne yow ku mel noonu yeyul mukk ñu wëlbati ko waddi ko rey xanaa lu dul ña yàlla subhanahu wa taala reylu ñooñu day jullit am na droit rey leen ca may koo xam ne daa nekkoon ci ñun ne moom jullit la ba mu neex ko mu génn ci diine yàlla ci ku mel noonu de dañ koo war a woo waar ko delloo ko bu dee ne nangu naa delloo fa xayr bu nanguwul a dellu dañ koy rey ñaareel bi mooy kii yàlla wërsëgal mu am sëy boo xam ne consommé na ko ay bu dee góor wala jigéen mas naa ànd ak kañ ko may ci ab lal su boobaa su wëlbati ko waatee it njaaloo ku mel nii day dagan na moom jullit ñi dajaloo rey ko gannaaw ba qaadi lislaam ba joxee ci ndigal ñetteel bi mooy jullit boo xam ne moom daa rey jullit te moo ko tey te moo ko tey ku mel ni it dagan nañu rey ko mu ngi noonu amma bu dul lii daganul ñu rey jullit mukk lu dul ci njuumte léegi nag yow bu dee ab jullit moo rey mbokk jullitam ci njuumte luy mbiram mbokk xam nañ ne njuumte boobee boo delloo ci fuqaha yi daañu séddale rey ñett ci ñetti wàll benn bi mooy koo xam ne nii da koo rey xataa ci njuumte moom jubluwu ko woon waa ji nga xam ne dafa nekkoon am maçon di tabax ca kaw benn birig rëcc ko dal ci nit moom yëgul woon sax na nit nga fa waa ji nga xam ne da doon dawal otoom far benn waay traversé ko ila axiri su boobaa yooyu moom ñëpp xam nañ da koo tey da da koo juum mu des lu ñuy tuddee lu ñu tey lu ñu tey moom ku ne xam na ko mooy koo xam ne def na ci nit loo xam ne wóor nañ ne kuñ ko def ci moom da ngay dee tim na ko dóor ko balu fetal wala tëral na ko rendi ko wala lu demee noonu mu des lu ñuy tuddee shibhu amd mooy lu nuróog lu ñu tey waaye attekat bi ba ko xoolee day xam ne kii jibluwul woon rey ko mi ngi mel ni la daloon yonent yàlla Muusa Muusa gis na ne ni ñii di mbokki firawna yi dañuy nongatu bani israil yi bu fekkee benn bani israil di xeex ak benn firawna di ko dóor waa bani israil bi woo ko ay Muusa kaay dimbali ma Muusa ñëw fekk waa ji taxaw rek mu tëgg ko korpañ rek waa ji ne seen tam daal di dee Muusa ne haada min amali cheytaan de ci mbiri cheytaan la ay yàlla baal ma jublu mu woon pour rey ko te loolu kon mi nga noonu ñaari nit a ngi di xeex du dóorantee kurpeñ yàlla dogal kenn ku dóoruk morom kurpeñ rek mu daanu dee loolu dañ koy tuddee nuru naag lu ñu tey waaye du ñu jàpp ne da koo da koo tey rey ko waa ji doon xeex ak nit jël benn yet soo xam ne yet bi daal dëgg dëgg wurta mën rey nit mu dóor ko ko rek mu far dee ku mel noonu it attekat bi dañ naan lii shibhul amd lay doon su daañ jël nag diye ba moom dañ ko diisal ci moom waaye ne kenn du ko rey am na ki nga xam ne moom attekat bi xool ne ba xam ne kii moom daa juum jëbluwu ci woon rey ko su boobaa suñu borom ne na jël benn jaam bu gëm yàlla mu goreel ko maadaama rey ñu nit na goreel jaam jaam boobu gore mën na doon ko libre ca loolu tamit bokkoon ci politique yi l'islam bim ñi fekk ne fi jaam nekk benn mbir universel ñépp di ko jëfandikoo islam bu tëboon ne na ñépp bàyyi jaam yi jaam yi ñooy jëkk am problème mu daal di koy tëral ci benn planification boo xam ni société bu mu yàgg jaam yi dañ ñu fa jóge ci coow du am bokk na ci loolu képp ko rey nit bala ngaa xalaat di jox famille ba nga xam ne da nga leen jox diya suñu borom ne jëkkal joxe goreel jaam ba pare te maadaama famille bi moom daañ taxaw ne la da ñuy fay te borom bi nee na bala ngaa fay diya bi joxe goreel ab jaam su boobaa da ngay gis intérêt jaam yi la ñu gaaw leen a goreel diya boobu mbokk mooy li nga war a fay la ciy cosaan muy gileem loolu ciy cosaan cosaan ba ma nga bawoo ca keroog ba suñu borom dogali Abdul Muttalib ñaanoon yàlla ko soo ma mayee fukki doom yu góor benn ba dinaa ko rey jaamoo la ko loole ci seenu ceddo far yàlla dogal fukkiilu doom ba doon Abdullah mi nar a jur suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loole waa Makka dajaloo na ko ah Abdul Muttalib ku ne xam ne day kilifa nga waaye kii day ëpp naa rey nañ seen nuñ ko jotoo ñu dem ci seen buxaaba ya loolu lépp boobu lislaam amagul bañ demee ci buxaaba ya ñu daal di tegoo ñu indi fukki giléem ñu lëtëri bant bi dal ci Abdallah ñaar fukk mu dal ci Abdallah quatre-vingt-dix giléem bant bi dal ci Abdallah téeméeri giléem bant bi doog a dal ci giléem yi ñu ne ah kon nañu rey téeméeri giléem yi jote ko Abdallah téeméeri giléem yooyu ñu rey gis nañ bi lislaam ñëwee loolu la saxal muy diya képp ku rey mbokk nit na ko jox téeméeri giléem léegi nag bu dee dëkk bu amul giléem ci ami nag ca la ñuy xiyaas giléem ya nu muy toll ci nag lu bari woon ci borom xam-xam yi daa lañ ko xool ci ñaari téeméeri nag dëkk bi amul nag amul giléem ay xar lañu yor daa nañ ko xiyaasi ci ñaari junni xar naka noonu ñii amuñu ay jur lu ñu am or ñu daan ko xiyaase ci junni dinaari or waaye cosaanu diya moom muy giléem su ko defee bu dee ne ñun ñi nga xam ne yoruñuy xar yoruñuy nag képp koo xam ne rey na nit ca tayu ko tay ga moom dina ñëw ca kanam waaye ci tayu ko li ñu waroon def mooy dem gànnaar wala jolof wala fu giléem am ñu laaj la nga xam ne giléem yu digg doomu ñaata lay jara masalan ñu ne rek ah ku am trois cent mille day da nga am giléem ñu ne ah ñu ne waaw ñu ne ko kon fois fois fois cent ñaata lay doon su ko defee ñu ne trente millions mi ngi noonu ñu ne kon ku rey nit ca tey ko na jox ñam reyal trente millions mi ngi noonu loolu mooy cosaan ci diye borom boobu nag ne kon diye bi nañ ko joxe ba mat sëkk su doon dañuy dellu ci détails yi dana xaw a compliqué ñiy fekkee bind fiq yi dañ ko xam almuhim diye boobu it la ci doon cosaan mooy famille waa ji moo koy fay ca islam tamit arab yi dañ leen daan séddale ay famille ñoom ñëpp xamante nañ muy ak géñoo famille bu nekk doomu bàyyi ya ca nekk la ñuy dajale attekat bi mooy xool nu muy séddalee ci ñoom diye bi ca ña ci ëpp alal ak ña ciy faqiir ak waa ji rey ci moom ci boppam bu ko defee mu planifié leen ko lu ci bëri ci diiru ñetti at lañ ko daan def fexe leen ba at mu ne ngeen indi fii trente giléem bu ko defee bu ñetti at yi mate mi ngi noonu ñu ne dii bi mat na dii bi kon nañ ko jox ña yeyoo ñu jox leen ko ca mooy ñey doon na ko ñu rey loolee mbokk muy benn su doonte ne nag lii dafa am mbokk kon nit ñi daan teey ndax suñu borom lu tax kii tayul ba pare mu teg ko fen bi yëpp dafa bëgg nit ñi teey ba bañ di rey nit ñi ci erreur waa joo xam ne nii yaa ngi jël sa oto di daw cent cinquante kilomètres à l'heure wala am na ñu koy def cent cinquante kilomètres nga koy daw à l'heure kookee dara traversé la nit traversé la nga rey ko teyoo ko naam teyoo rey gi mais nag yaa def sabab bu rey ko mi ngi noonu loolu la ñuy wax ci bépp sabab bu nit ki def ci danger bu mën a rey nit su boobaa na am jubluwoo ca rey nit waaye looloo tax islam di ko teg fen boobu borom boobu nag subhanahu wa taala daa di wax ci beneen cas beneen cas bi mooy lan mooy bi islam day am na dëkk boo xam ne dañoo séq ak ñoom jàmmoo waaye ñoom ay chrétien lañu masalan am na na julit bu dën boo xam ne seen mbokk la tuub ñu dugg ci lislaam kookee ab julit rey ko luy pexe suñu borom ne nañ jëkk génni diye bi maadaama ñoom duñu ay julit nañ jëkk a matal kóllëre seen diggante ak ñoom génni diye bi jox leen ko su ko defee bu diye ba matee waa ji doogu ci jaam nag bu mu goreel ngi noonu amma bu doonte ne jullit bi daa bokk ci xeet boo xam ne ñoo lislaam histoire dafa dox seen diggante dañoo noonoo waaye moom jullit la suñu borom ne it ku ko rey it su boobaa amul diye bu ñuy jël di ko jox noonu lislaam waaye nañ jël diye boobee nañ nañ jël jaam daal di koy goreel lii mbokk da ngay gis ne moo nekk la suñu borom yàlla wax ca loolee tudde ko tawbatam min allah muy tuub goo xam ne yàlla moo ñu ko defal baaxe ñu ko soo delloon ci bani israil ay diya amuñu ko woon mu ngi noonu amuñu woon diya ku rey nit ki teyu ko jeex na xalaas ay mbokkam perte nañu ku rey nit ki moo ko tey ay mbokkam lu ñu am rek mooy nañ ko rey amma nag lislaam moo ñu may ci mbaaxug yàlla may ñu la nga xame ne ni moom mooy diya borom boobu nag mu ne mooy tuub waaye mooy ki xam mooy ki xereñe na am lu tax loolu doomu aadama mën ne piège makk yi benn crime ba ku ko gis da naan kii day teyu ko fekk moo ko tey kon nag mën ngaa nax nit ñi ci ne tayoo ko bañ jàpp àtte ne tayoo ko waaye ki nga xam ne moo tey li mu def ku mel noonu it yàlla xam na ko moo tax yàlla bi mu nee tuub it du ñëpp lay nangul tuub bal mooy alim xam na ka ka yeyoo alxakim lu nekk fa mu war a tegee xam na ko mbokk loolu moom passé mooy rey na nit ki teyu ko jeex na mu des nag beneen cas beneen cas mooy beneen jullit mi ngi nii gis mbokk jullitam intérêt àdduna tax mu jóg daal di koy rey mbokk loolu sunu borom yàlla wax na ci juróomi mbir nee na payam bu njëkk mooy jahannama la jëm ñaareel ba dafay sax ba faw ñetteel ba merum yàlla nga ànd ak moom ñeenteel ma rëbbum yàlla nga ànd ak moom juróomeel ba suñu borom mu ne maa ngi koy waajal mbugal moo xam ne nii mbugal bu màgg la lii mbokk mooy ki rey nit ci tey ko ca bokk na ci rasul sallallahu alayhi wasallam la moo xool ñaari jullit day bu ñu dajee ak seeni arme ku nekk yéen a rey sa moroom ki rey day sawara la jëm ki ñuy rey ki ki ki ki ñuy rey sawara la jëm saxaaba yi na ko may lu tax ki ñuy rey di dem sawara mu ne dafa xiroon ci rey mbokk julitam looloo tax mu nar a dem sawara looloo tax mbokk julit nga la waay ay xeex syndicat ay xeex ci wàllu sport ay xëccoo ay tool ay xëccoo ay frontière ak yu demee noonu nga la waay julit na xam ana lan mooy waral muy jóg jëm ci mbokk jullitam jublu rey ko loolu ci musiba yi gën a garaaw la bokk mi ngi noonu te ñu xam ne it bokk bakkan bi gën a yey ñu war koo sàmm mooy sa bakkan wax nañ fii ci dars yi passé ni rey téeméeri nit booy seet moo gën nga rey sa bakkan ndax doomu aadama bi moom bu reyee nit mën naa wëlbati ko tuub mais ki rey bakkanam moom nu muy tuubee rey na bakkanam jeex na mu des nag ndax ki rey nit jullit bu rey jullit tuub ndax yàlla dana nangu tuubam borom xam-xam dañu muy ixtilaaf foofu am na ci ñoo xam ne dañ ne jullit bi rey bi xam ne ah kii mbokk jullit la mu wëlbati ko rey ko yàlla du nangu tuubam mi ngi noonu donte ne ni la gën a dëgër mooy suñu borom dana day doo bale ñu koy bokkaale waaye dana bale lu gën a yiis loolu mi ngi noonu loolee kon ñoom dañ ne bu tubee yàlla baal ko am ñeneen ñu cay gisit ne moom day bu dee bi mu koy rey da cay jublu ne dagan na mu rey ko ku mel noonu kon ak kéeféer la saxal loolee da ngay gis ne bu ca dee ci tuuba ko yàlla du ko baal almuhim ñeneen jàpp it ne ak tuub de yàlla koy may ku ko neex waaye suñu boroom lam tudd ak tuub mooy ñey rey ca tayuñu ko amma ñii jullit bu rey mbokk jullitam ci tayu ko ku mel noonu ñi ngi yaakaar na yàlla du ko dëppale mukk mu tuub ca bu tuubul lii mooy payam ay fa jazaohu jahannam ay mooy bu tuubul mi ngi noonu loolu nag ba tey it daan ci dégg ne li nga xam ne mooy bakkaar ak bu mu mën a doon ku ko yóbbaale sawara lu mu yàgg-yàgg da nga fa génn bu dee ne shirk billah bokku ca naam yàlla nag moo xam ñaata la la fay bàyyi donte ne xaalidin arab dana ko wax sax ba faw mooy sax gu yàgg amma bu ca dollee abadan nag lu ci bëri mooy loo xam ne dootu ca génnati mu ngi noonu léegi nag yàlla subhanahu wa taala moo xam kookee payam la muy nar a sax sawara téeméeri at junni at fukki junni at yàlla moo xam ci loole waaye mbokk yàlla dana ko baal ak yàlla du ko baal ak dana tuub ak du tuub rek liñ leen di ñaan daal mooy di ko ñaan suñu bopp yow jullit lenn ci xëccoo àdduna warul jëw jar nga jóg di faagaagal sa mbokk jullit allahuma lu dul li ñuy tudde légitime défense légitime défense mooy lan waa ji jóge ne fële day bëgg laa rey ca amul benn pexe booy mën a fexe ba du la rey lu dul ne da nga ko rey su boobaa day moom boo ko reyee ngir loolu yàlla du la ko toppee parce que yow jublu woon rey ko da nga dul jublu défendre sa bopp loolu mi ngi noonu ñu bokk xamit ne te jamono Omar ibn al-Khattab wax nañ ko amiram ba nekk ca Yemen en tout cas ñun lañ fee jàpp sept personnes yoo xam ne dañoo jël benn waay rey ko Omar na ñoom ñëpp dañ leen rey gars yi na ko ah waaw nu ñuy reyee sept personnes ci benn bakkan mu ne wallahi waa Sanaa muy capitalu Yemen yëpp buñ dajale woon rey benn jullit ñoom ñëpp danaa wax ñu rey leen. loolu it kon muy wane ni bu dee ay jullit dañoo ànd ah tey ko ñaar lañu ñett lañu lu mu mën a doon. jël mbokkum jullit rey ko ca ñoo ko tey islam bu ñëw ñoom ñëpp lay reyandoo loolee kon mi ngi noonu donte ne am na yeneen atte yu bari yu aju ci loolu yoo xam ne ci buntu fiq lay dellu yal na yàlla musul ñu rey nit ci tey koog ñàkk koo tey bismillah cheikh ousmane ya ayyuha alladina amanu ida darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم إلى تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا barakallahu fiik suñu boroom jalla wa ala mu ne yaa ayuha alladina amanu ida darabatum fi sabilillah mooy su ngeen jógee di dox di jëm ci yoonu yàlla fa tabayyanu na ngeen leerlu wala taqulu liman alqa ilaykum assalaam bu leen wax mukk ci kii sànni jëme ci yéen ab nuyoo lasta mu'mina yow ne koo ku gëm tabtaxuuna arada alxayaati dunia yéen a ngi faggu yéen a ngi sakku la nga xam ne moom la ñuy gaaral ca dundug àdduna gi muy alalu àdduna fa inda allahi maganimu kasira nekk na ca yàlla day ay ngañaay yu bari mi ngi noonu kazalika kuntum min qablu xam leen ne kat yéen ci réer googu ngeen nekkoon lu jiitu fa manna allahu alaykum yàlla baaxe leen ba ngeen dugg ci lislaam kon fa tabayyanu de leen leerlu inna allaha kaana bima taamaluuna xabiira ndax yàlla day li ngeen di def ko ko xam la mbokk suñu borom wax nañu ki rey jurit fekk dafa juum ak ki rey jurit fekk moo ko tey léegi muy wax ñetteelu mbir mooy ki nga xam ne dafa jóg di rey ka muy rey moom moo ko tey problème bi nag mooy ndax ki muy rey jurit laam yéeféer li waraloon ay yi wàcc rasul sallallahu alayhi wasallam dafa yónni woon benn détachement ci armée ci benn dëkk boo xam ne ay yéeféer lañu ñu waroon a jihaat ak ñoom léegi biñ demee ba jub dëkk bi ñu gis fenn waay mi ngi yor ay juróom mi dajeeg ñoom seen leen ak jur gi rek na leen asalaamaaleykum asalaamaaleykum ñu ne ah ab yéeféer la jur jur gi rek lay ñoŋal dóor rek mu daal di daanu mi ngi noonu loolee nag ba ñenn ñëwee nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk jiite woon détachement bi yow ashaqaqtaan xal bi ndax avant nga koy rey ubbi nga xolam ba xam li muy wax dëgg la am du dëgg mi ngi noonu ba waaja sax ne man aka neexoon fekkoon na bi su keroog laa tuub ndax yonent bi lim nekkoon di répété loolu suñ borom yàlla nag wëlbati ko ne ay yéen jullit ñi ida darabatum fi sabilillah te mooy bu ngeen jógee di tukki koo xam ne day dóor ab tànkam di dem ca la ëppoon ca la saxaaba ya doon génn jamono yonent bi mooy génn jëm ci jihaad mi ngi noonu booy moom la borom bi subhanahu wa taala di wax aliman an sayakun minkum marda wa axaruna yadribuna fi l ard yabtaxuna min fadlillah ila axiri la ëppoon jihaad moo tax suñu borom nag ne bu ngeen génnee di jihaad it bu leen ku ngeen dajal rey ko bala ngeen a rey nit leerlu leen ba xam kii kat julit la am du julit fa tabayyanu na ngeen leerlu ca it mbokk jullit tamit léppam lool la amul lépp looy jël engagement di ca dogu wala di ca atte lu dul ne daa fekk ne am nga preuve yu leer ne lii ngay attekat nii la tëdde tubaab yi dañuy doy waar doy waar dañ naan sans enquête on n'a pas droit à la parole ki nga xam ni gëstuwul mbir amul droit di ca wax ku amul droit wax nag amul droit jëf loolu kon fa tabayyanu ca it bari na rawatina ñun ñu tombeek internet ngan la waay mbokk fa tabayyanu bul gis xabaar boo gis ci internet bi rek saxal ko jàpp ne dëgg la waxumaa la gën a garaaw nag tasaare ko ak bari ay xabaar yu ñuy wax fekk ne la ci ëpp suñ jamono tey ji du dëgg ay montage la ay wax la yoo xam ne nii tegewul fenn wala même bu dee loolee dëgg la it ba muy dëgg mat na fukki at ak juróom-ñett ca ca gannaaw ñu seeñal ko léegi mel ni léegi si lay doog a xew loolee mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax fa tabayyanu day leen doon lu ngeen di leerlu maa ngi ciy profité am na benn espèce audio bu ñuy tasaare par di wax naan benn secrétaire càndoom day dafa tuub dugg ci lislaam malheureusement man maa ubbi kàddu ga loolu ëpp na ñaar fukki at parce que jege na ñaar fukki at mais gis naa ñu koy def ci internet bi wala benn xale bu jigéen boo xam ne à peine ay vingt ans la am ñu jël audio bi jiital ci samay wax jiital ca waxu ndaw soose ne nangam nangam yow boo ko ubbee xool da ngay mel ne ni lii la xew am na ñoo xam ne xamuñu ma sax envoyé ma ko ci mbir mi ci jàkk ji la xewoon te loolu ëpp na ñaar fukki at donc mbokk il faut doomu aadama bi di tey bépp xabaar boo jot fa tabayyanu dee leen leerlu borom bi subhanahu wa taala nag ne li nga noonu rawatina ki nga xam ne dafa ñëw nuyu leen te mbokk asalaam mooy mandarga jullit jullit daje ngaak mbokk jullit États-Unis Russie Inde ngeen daje asalaamaaleykum waaleykum salaam ngeen xam ne ñaari jullit ngeen mi ngi noonu muy fàttali sama benn mbokk Samba Touré hafizahullah nee na dañoo dem Turquie ñu dem Turquie moo ki mandaloon ni ñu solo ak ni ñuy bàyyi seen sikkim benn góor ñëw dajeeg ñoom asalaamaaleykum ñu ne ko waaleykum salaam mu ne muslim ñu ne muslim mu kontaan ku nekk mu akolaat la fekk ñu ngi jëm ci benn restaurant nee na ñoom bi ñu jëmee ci restaurant bi ñu dem toog lekk ba pare bëgg a fay waa ji ne leen noo góor gi ngeen àndaloon fay na li ngeen nar a lekk yépp keroog lañ ma si gise keroog lañ mujj gise mais xoolal rek nuyoonte asalaamaaleykum waaleykum salaam muslim muslim jeex na loolu kon mbokk muy mbir mi doonte ne tey loolee jeex na ci nit ñi bal bureau yu bëri daje yu bëri soo ñëwee ne asalaamaaleykum ñëpp lay gëstuwaat mi ngi noonu mel na yow yaa ngi jóge ci kaw asamaan yaa ngi dégg ndax nit ñi xamatuñu yooyu gis ngeen ala kulli xaal képp koo xam ne da leen a wax asalaam bu leen ko wax doo ngeen julit lii ngeen yàkkamti ci alalu àdduna xam leen ne nekk na ca yàlla nga naan yu bëri te mbokk aay yi bi muy jàng bi bi ñu koy jàng rasul sallallahu alayhi wasallam mi nga amoon ak problème ay dëkki arab yu nekkoon rek diggante Makka ak Madina suñu borom ne nag ngañaay yu bëri ngi leen di xaar na am teguñu ci at yu néew yàlla may leen kattan ñu daaneel puissance yi gënoon rëy seen jamono joojee di waa Faris di waa Rome ubbi dëkk yooyu nga xam ne nii moo nekk presque lépp ci jaziratul arab loolee kon da ngay gis la leen yàlla digoon def na ko muy wane it ne yow ndawal julit ba tey bul yàkkamte sa àdduna kees gi ñu la dénk mën nga ci jël na am bureau bii ngay liggéeyee gaa yi ngi ñëw di la ger bu dégg ba cëg na am loolee ngalawaay xamal ne lu teewlu ci àdduna daganul bàyyi ko ci yàlla tax fa inda allahi maganimu kasira yàlla ay li nekk ci ay magasin du jeex du xaaj ca loolee mi ngi koy dencal ab julit doo fexe ba doo jël sa wërsëg loolu tax ragalal yàlla ca rafetal na nga xam ne moom ngay jëfee yàkkam ci sa wërsëg bu mu tax moo ko nga jëlee ko ci jëlin bu xaraam tabtaxuuna arada alxayati dunia fa inda allahi maganimu kasira yàkkamti ngeen ngañaayu àdduna waaye nekk na ci yàlla day ngañaayu yu bëri gannaaw ba yéen kii ngeen xam ne ab yéeféer ngeen ko jàppe ca moom wax na leen assalaam ngeen na ko doo julit xanaa yéen da ngeen fàtte ne noonu ngeen meloon ca mooy sahabatul kiram ñi doon jihaad ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën nga wax kenn juddowu ci ci lislaam kenn juddowu ci ci lislaam lu ci bëri ca ñoom ndax booba l'islam à peine mi ngi doog a am 15 ans après à peine bi jihaad di di xew islam mi ngi doog a am 15 ans donc ña doon ànd ak bi jihaad ñëpp avant l'islam lañ judd léegi nag yàlla subhanahu wa taala baaxee leen ngeen dugg ci l'islam kon nii ngeen meloon na ngeen comprendre rek ne keneen dana mel ne yéen wëlbati ko dugg ci l'islam loolu kon yàlla moo lay baaxee loolu it mbokk jullit léeg-léeg yàlla baaxee kenn ci ñun. ngalla waaye buñ ko fàttali démbam benn waaye ngi nii naan sangara rek moo doon métier yàlla baaxe na ko mu dugg ci lis mu mu bàyyi sangara ga i waaye bu ko fàttali naan sangara googe benn cagaa ngi nii da daan wër di njaaloo ñëpp xam ko mu xëy xëy bàyyi ko ca yàlla tax ñëw ngalla waaye yàlla baaxe na ko yéen it baaxe leen ko mooy bu leen ko fàttali loolee kii nekkoon fi di agresseur bu mag yàlla dogal na tourne dugg ci lislaam ngalla waay fa man allahu alayhi yéen it laay leen ko biir bu leen ko fàttaloon lu ko defee tamit nga xam ne yow ma nga xam ne mosoo caa jaar yàlla la baaxe képp ko dund ba toll ne sa bàyyi mosoo njaaloo yàlla la baaxe rek naanu sàngara yàlla la baaxe rayoo nit yàlla la baaxe kon ku ca jaaroon ba tuub ngalla waay yow it xamal ne kii yàlla baaxe na ko bu ko fàttali démbam borom boobu ne nii ngeen meloon yàlla baaxe leen dee leen leerlu ci xam ne yàlla dara rëcc ko ci li ngeen di def muy alxabir jalla wa ala mi ngi noonu Cheikh Ousmane لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين وزوجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا barakallahu fiik suñu borom mu ni laa yastawi alqaa'iduuna min almu'miniin du yemoo mukk ña nga xam ne dañoo toog ca ña gëm xayru uli darari ñu bokkul ak ña nga xam ne dañoo nekk boroomi lor wal mujaahiduuna fi sabilillah ak ña nga xam ne dañuy jihaad ci yoonu yàlla bi amwaalihim wa anfusihim ca seen alal yaag seen bakkan ya faddala allahu almujaahidiina bi amwaalihim wa anfusihim yàlla day gën a la ne ña nga xam ne ña ngay jihaad ci yoonu yàlla ca seen alal ak seen bakkan alal qaaidiina daraja ca kaw ña nga xam ne dañoo toog yàlla gën a na leen ay daraja wa kullan waada allahu alxusna amma képp kenn ca jullit ña ña jihaat ak ña jihaatul yépp yàlla mi ngi leen di dig di leen waajal alxusna ay la gën a baax ca may aljanna wa faddala allahu almujahidina ala alqaidina ajran azima yàlla nag ma ngay gënal dana gënale ñay jihaat te ña nga xam ne dañoo toog ci yool boo xam ne yool bu màgg la darajatin minhu ay daraja yu bawoo ci yàlla wa magfiratan wa rahma ak njëggal ak yërmande wa kaana allahu gafuran rahima yàlla day nekk naa kuy jéggale ca kuy yërëmaate inna alladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim ña nga xam ne day dana leen faat malaaka ya fekk ña ngay tooñ seen bopp qaalu fiima kuntum malaaka yi daal leen wax mooy yéen ci lu ngeen newoon qaalu kunna mustadafina fi l ard ñu ne ñun dey mooy ñun ñooy nit ñi néewaloon doole ci kaw suuf qaalu alam takun ardullahi waasiatan fa tuhaajiru fiha ñu ne waaw xanaa nekkul woon suufa si yàlla si di yaatu ngeen gàddaay jëm foofee fa ulaika ma'waahum jahannam ñu mel nii day seen wàccuwaay moom mooy sawara wa saat masira aka bon la nga xam ne mooy ak mujj cey ki mujj sawara mi ngi noonu mbokk suñu boroom bi mu tërali jihaad jihaad boobee gis nañ la ëpp woon la yonent bi alayhi salaam daan def mooy da ci daan ñaax nit ñi nee woon na mu de mu ne na ñépp jóg mu nekk farate ci ñépp loolu comme na mu amee woon ci xasatu Tabuk wala ay xasatu Uhud waaye gannaaw ba lu ci bëri suñu boroom danaan yellul ci jullit ni ñoom ñëpp ak ñeen firoo kaafa fa lawla nafara min kulli firqatin minhum mi min kulli taifatin minhum taifa aw min kulli firqatin minhum taifa yellul ci jullit ni ñoom ñëpp ñuy jógandoo di dem waaye nañ fexe ba kuréel bu ne am ñu sa jóg dem suñu boroom nag ne ñooñu nga xam ne ñooy cooberewu di génn di jihaat ci yoonu yàlla ñu mel noonu day seeni daraja du yem ak jullit yi nga xam ne ñoom ña nga toog ci seeni kër donte ne ay jullit lañu allahuma lu dul suñu borom boo daal di ci génne nag ña nga xam ne dañoo am ay ngant xayru uli darar ñi am ngant ca mooy ñan naka yàlla di subhanahu wa taala di wax rek laysa alal ama xaraj wala alal araj xaraj wala alal maridi xaraj koo xam ne bi ñuy génn dem jihaat yow da ngaa silmaxa yow da ngaa la feñ yow da ngaa feebar bu dee lii moo la tey génn ku mel nii moom yaag ñay jihaad yéen a yem pay rasul sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ñu jógee Tabuk dañoo ñëw xeex bu xare boo xam ne def na ñaar fukki fan ci àll bi bi ñuy ñëw mu ne moo ne day ñi ngi bàyyi Madina ay nit ñoo xam ne amul benn coono bu ñu dal suñu tukki bi loolu ñu ngi ca ànd ak ñun amul benn pay bu ñu yàlla pay lu dul bokk lañ ko ak ñun saxaaba yi ne ko ah ci ñi ngi Madina mu ne waaw waaw ndax abasahumul uzr la tey ñu ànd ak ñun mooy lor bi nekk ci ñoom loolu it muy woññe ne mbokk bépp façon jaamu yàlla boo xam ne doomu aadama bi dogu woon na pour def ko nganta teemu def ko yàlla dana ko booleeg pay ña nga xam ne ñoo ko def ñu ngi mel ne tey jii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na li mu wax ñi yàlla di keral ca yawmal qiyaama wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid góor goo xam ne xolam mi ngi aju ci jàkka ja aka bari ñu daan dem jàkka yàlla teg ci ñoom ay ngant ngir feebar wala leneen wala leneen su boobaa it yàlla may ne leen yoolu ñu nekk ca jàkka ja kon ñi yàlla di wax fii mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu ngant ba pare jihaatuñu donte ne loolu it buñ koy wax du ñuy fàtte kii nga xam ne mooy abdullah ibnu ummi maktum ki nga xam ne moo nekkoon ñaareelu noddukat ca jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan salaatu mooy noddu gu mujj ga gis nañu ne keroog xasatu yarmuk jullit yi ñi ngi xeex ak waa ruum yi xeex ya nekkoon na loo xam ne différence ba bari woon na ñee nekkoon nañ téeméeri junni ñi nekk jullit ñi nekk ñoom fanweeri junni dafa génn sol tenue de combat am ne day jihaat yi gaa yi na ko hey yow suñu borom nee na yow baal na la jihaad wala ala laysa ala ama xaraj mu ne déedéet suñu borom dana xaraj dana amuñu ngant pour bañ a dem waaye yàlla waxul bu ñu dem masalan yàlla araamal lu ñu dem kon bàyyi leen ma ma dem ca drapeau bi mën ngeen koy jox ndax man mënumaa daw gis ngeen jiite yor drapeau bi radiyallahu anhu keroog lañ ko rey waaye keroog la jullit ñi am ndam dàq rome yi loolu mi ngi noonu loolu it muy wane ne mbokk tey jii bu ñu gisee benn waay silmaxa di làmbatu ba dem jàkka ja yow mi yàlla may ay bët nga toog sa kër ndax loolu wuru laa rusloo soo gisee benn lafañ di raam di dem jàkka ja nga gis ko yor ay biikim di këndëng këndëng dem jàkka ja yow dara jotu la ba pare nga toog ndax loolu wuru laa rusloo ah kay loolee kon moo tax suñu borom jalla wa ala ni ñooñu nga xam ne amuñu benn ngant day ah yàlla gënale nañuy jihaad ci seen kaw ci daraja yoo xam ne daraja yu kawe la doonte ne ne firiwul ne waa ji jihaatiwul rek ko baaxul la déedéet mooy jihaat wax naa leen la ëppal lañ ko doon def mooy yonent bi la ci daan coobare woon nit ñi wa kullan wa'ada lahu al-husna loolu muy wane ne mbokk ab jullit bi gëm yàlla di julli di woor di yéene lu baax àjjana la jëm su ko defee loolu moo tax da nga naan jullit ñépp àjjana lañ jëm loolu la jullit war a wax boole mi jullit àjjana lañ jëm am naa nag ndax ma samba àjjana la jëm wala ma demba àjjana la jëm déedéet loolu moom dañuy xaar ba yonent bi tudd turam am nga droit daal ne mboolem jullit ñi gëm àjjana lañ jëm am nga droit ne mboolem yéefir yi weddi sawara lañ jëm jeex na am maa nag doo ci détaillé tour par tour mi ngi noonu lu dul boo dee loolu ko mel ne cheikh islam ibnu taymiya moom def naan xeet bi duñu dëppoo ci réer te mooy ci xeet bi dëppoo ak mbaaxam àjjana la jëm masalan ku mel ne ay imaamu malik ku mel ne abu hanifa ahmad ak ñu demee noonu borom xam-xam yu mag yooyu nga xam ne xeet bi yépp a nangu seen xam-xam nangu seen mbaax mun a ñooñu boo dee àjjana lañ jëm amoo ca ngant waaye daal la jumhurul ulama wax la borom xam-xam yi ëpp wax daal mooy ñu yem ca ña yeneen bi tuddoon ñeneen ñi ci des ñëpp it ñu rafet njort ci ñoom ne àjjana lañ jëm mooy bépp jullit bu ñu gis ñu ngi doon julli di woor di jaamu yàlla kabairu zunub bakari may xamul lañ ko mu dee nañ rafet njort na àjjana la jëm am maa nag dogu ci ne àjjana la jëm loolu moom kenn du ko def mi ngi noonu borom boobu nag ni kullan waada allahu lxusna ñoom ñépp yàlla ngi leen di waajal la gën a baax gën a kawe muy àjjana waaye nag yàlla gën a leen nag ña nga xam ne ñooy mujaahidiina yi ajaran azima ci daraja yu jóge ci yàlla ca mbokk àjjana day képp ku gëm yàlla jaamu yàlla àjjana la jëm waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla séddale na ko téeméeri daraja diggante benn daraja ak moroomam mooy étage ak moroomu étage am bu doon ay étage la ñuy wax waaye du ay étage étage yoo xam ne dafa tegaloo ci jaww ji yonent bi alayhi salaam nee na dafa mel ni diggante ak suuf ak biddiw yi ngeen di gis noonu lay tegaloo noonu lay tegaloo ba nekk téeméeri daraja yàlla nga koy waajal ñiy jihaad fi sabilillah loolu it mbokk mi ngi noonu dugg àjjana xéewal la waaye am ca daraat garab yi gën a kawe moo gën a nekk xéewal ca loolu ñi ngi koy jagleel ñi doon def effort ngir dire yàlla ji taxaw ca it yàlla la jóge ca moom la shakk ne lu màgg la moo tax borom bi ne darajaatin minhu wa maghfira wa rahma daañu am daraja yi gën a kawe ca àjjana am njéggal am yërmaande ca it mbokk kiy jihaad fi sabilillah yàlla da koy gaaw a baal ay bakkaaram yàlla da koy gaaw a yërëm yéen a ngi fàttaliku keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu reeti ji Makka te ne yàlla yàlla na nga nëbb suñu xabaar bi waa Makka bañ betti leen loolee kenn ci sahaaba ya fekke woon Badr Xaatib ibn Abi Baltata daal di jël benn lettre jox ko benn jigéen bu doon dem Makka pour xamal ko ne ko yonent bi alayhi salaam mi ngi ñëw loolee yonent bi yàlla xamal ko xabaar bi mu yónni ñu Ali ñu dab ndaw si nangu lettre bi ci moom biñ ñuy ubbi ko muy xaatib ibn abi baltata ay abu sufyaan maa ngi lay yëgal ne yonent bi kat mi ngi préparé benn armée pour dal si seen kaw omar ibnul xataab na boset jaasi ay yu mu yàlla yónni naafiq pire ngi bàyyil ma rek yonent bi na ko déedéet omar kii fekke woon nañuy fekke woon na badar lu lay xamal ne yàlla wax na waa badar lu leen neex def leen baal naa leen mi ngi noonu fan moo ko waral mooy jihaad ba mu jihaad doon ca badar mu ne loolu kon omar xawma ndax yàlla wax na waa badar lu leen neex def leen baal naa leen almuhim suñu borom nee na ñii jihaad fi sabilillah day danaa leen may maxfira bu bawoo ci man ca mbokk jaam bi lu bakkaaram garaaw garaaw njéggal bay bawoo ci yàlla moo ko ëpp am déet mi ngi noonu am na benn ñaan boo xam ne nga la way yéen ndaw ñu seen xel mën a jàpp dem leen ngeen jàng ko yonent bi alayhi salaam dafa waxoon Abu Bakar booy julli bokkal ci say ñaan allahuma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaxfiru zunuba illa anta faxfir lii lan moo ci topp faxfir lii maxfiratan min indika mi ngi noonu mooy baal ma baal gu bawoo ci yow doomu aadama loo mënoon a def ci bakkaar bu njéggal jëmi jógee ci yàlla rek muur na say bakkaar moo tax mu ne maxfiratan min indik yàlla nag ma baal baal gu bawoo ci yow mi ngi noonu ca nga yërëm ma ila axiri almuhim kon suñu borom nee na mi ngi leen di waajal loolu borom boobu nag nee na mooy alxafuur arrahim jalla wa ala mu des beneen catégorie catégorie bi moo ñi ay jullit ñoo ne leen ay jullit lañu waaye dem dëkk ca biir yéeféer ya yéeféer yi tere leen jaamu yàlla ñu daal di bàyyi jaamu yàlla ngiree bundu xataal yu tar yañ leen defal na am mbokk soo déggee ñu ñëwee ay Birmanie ay Centrafrique ay nangam parce que dañoo feeñal seen diine donc am na ci ñu xamuñu lislaam muy dëgg mais bañ ñu ñu indil problème ñu far bàyyi diine ja suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne ah ñooñu nga xam ne day dañoo nekkoon ci sax ci kéeféer gi ba dee ci kéeféer googee ay malaaka yi ñëw di leen faat si ne leen waaw yéen ci lu ngeen nekkoon ba jaamuwu leen yàlla ñu naa ak ñun kat dañoo néewaloon doole ci kaw suuf lu leen malaaka yi de waaw suufa si yàlla si yaatuwul woon ba ngeen génn dem faa waay ah ndax suufa si yàlla si yaatuwul woon ba ngeen am feneen fu ngeen mën a dem ah ba bañ a sax ci kéeféer gi suñu borom ne ñii day sawara mooy nekk seen wàccuwaay sawara mooy nar a nekk seen wàccuwaay ci ak a ñaaw la nga xam ne mooy mujjug sawara loolu it moo tax ba mbokk julit war naa góorgóorlu léegi leen nga dégg benn waay bu naan liggéey bi muy liggéey dañ leen a tere kenn du fi julli léegi moom mu continuer bàyyi julli di liggéey liggéey bi waaw ndax yàlla benn liggéey bi dong la dogal nit mën koo liggéey déedéet mbokk julit loolu doon lay julit am na benn jeune muy tudd Sané yàggoon na suñu jàkk ji mi ngi côté yëmbal benn usine bi mu daan liggéey plastique dañuy tere kenn du fa julli kenn du julli te léeg-léeg six heures du matin ngay dugg fekk fajar jotagul yaa ngi nar a wàcc ngoon wala léeg-léeg mën ngaa dugg kaaru six heures mi ngi noonu ila axiri ala kulli xaal kenn du fa julli ba loolu amee moom mu ne day julli gars yi ne ko kon dañ lay dàq ñu dàq ko yàggul dara mu def benn concours ci volontaires yi yàlla dogal ñu jël ko lam nekk léegi moo gën fuuf usine ba mu doon journalier su ko defee kon jullit lool la tafsir yi passé it nett li ne laan fii sunu benn waay boo xam ne nii Aliou Ba yàlla na yàlla jéggal ko yërëm ko nekkoon na ci benn hôtel gars yi di nekk foofu heure julli jotee mu dem julli chef yi mu nekkaloon di ko critiquer pourquoi muy bàyyi poste bi bund xatal ko ci ba dàq ko biñ ko dàqee coono dal na ko gauche droite gauche droite waaye pour misaal rek bi muy dee ci biir Mercedes am na dee gis ngeen te mën na buñ ko dàqul woon ci hôtel ba gis ngeen xalaas su ko defee kon yow heure boo demee ba nekk ci place ñu ne la kat fii doo fi jaamu yàlla bàyyi ko bàyyi ko bu fa dugg boo ko xamee au départ bu fa dugg boo ko nekkee bàyyi ko sinon boo ca nekkee ba dee ca malaaka yi daal la wax naaw xanaa yàlla amul woon leneen lu dul lii ba nga dem uti nga ne lu yàlla lii mooy la nga xamee ni moom la borom bi subhanahu wa taala wax kon Cheikh Ousmane
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا قرأتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغفروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا jazakallahu xayra suñu borom mu ne illa almustadafina lu dul ña nga xam ne dañ leen a néewal doole min alrijali wannisaai walwildaan ca góor ña ak jigéen ña ak ndaw ña laa yastatiuuna xiilatan ñoo xam ne amuñu kàttan ci benn pexe wala yahtaduuna sabila ca mënuñoo jub ci benn yoon bu ñu mën a génne ba mucc ca loole fa ulaika asa allahu an yafuwa anhum ñu mel nii day mën na yàlla subhanahu wa taala jéggal leen wa kaana allahu afuwan gafura yàlla day nekk ne kuy jéggale kuy suturaal ay jaamam baal leen seeni bakkaar wa man yu wa man yuhaajir fi sabilillah koo xam ne nii da ngaa gàddaay ci yoonu yàlla yajid fi l ardi muraagaman kathira dana fekk ci kaw suuf muraagama mooy luy merloo ay loo xam ne dana merloo ay noonam ci xéewal yi ko yàlla di teeru wa saa ak yaatal gu ko yàlla di yaatal ci kaw suuf wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allah koo xam ne génn na ci këram di gàddaay jëm ca yàlla wa rasulihi ak ca yonente yàlla ba summa yudrikuhu l mawt gannaaw ba mu daal di koy dab dee day faqad waqaa ajruhu ala allah ku mel noonu day fayam ba rot na ci yàlla wa kaana allahu gafuran rahima yàlla day musul yàlla nekk na di kuy jéggalaate kuy yërëmaate wa ida darabtum fi fi l ard su ngeen demee bay nekk di tukki ci kaw suuf fa laysa alaykum junaax amuleen benn ngant an taqsuru min as-salaa ci ngeen di gàttal la nga xam ne mooy seeni julli in xiftum an yaftinakum alladina kafaru su dee da ngeen ragal mu daal di leen di fitnaal ña nga xam ne ñooy yéeféer yi inna alkafirina kaanu lakum aduwan mubina yéeféer yi nekk nañ ci yéen noonu yoo xam ne noonu yi biir lañu mi ngi noonu mbokk suñu boroom moo xami jaamam nee na képp ko sax ci biiru kéefir ñu bundu xatal la teelaa jaamu yàlla ca gàddaayu boo dee sawara nga jëm allahuma lu dul ñi nga xam ne kat dañu leen a noot jàpp leen na doon góor lañu wala jigéen wala ay ndaw amuñu benn pexe buñ génne dëkk ba amuñu fenn foo xam ne nii aw yoon wu ñu mën a jaar ba rëcc la ñu mel nii day bu dee seen yéene sell na yàlla du leen toppe loolu te mboo ko xam leen ni ci makka rasul sallallahu alayhi wasallam bi mu siñanteeg waa makka li ñuy tuddee sulhu hudaybiya waa makka bokk na lu ñu siñante woon ak moom léegi nag muhammad bépp waay bu dawee ci yéen ñëw ñun makka dañ koy téye waaye ku dawee ci ñun ñëw ci yow dañ ñu koy delloo yonent bi ne leen d'accord mi ngi noonu keroog sahaaba yi bëgg a rey seen bopp rawatina Omar ibnul Xattaab ko fàttaliku xëy na histoire Hudaybiya xam nga loolu ala kulli xaal loolu lañ def amul kenn koo xam ne da nga nekk màkk lu dul waa màkk ñu ngi la pini foofu di la bunduxataal doo génn boo rëccee dem Madina dañ lay jël yàlla dogal mu am kenn ci ndaw ña di Abu Bachir daw rëcc ay ay ay ay ay param daw dem Madina bi mu demee jëm Madina waa Makka yónnee ñaari ponkal pour ñu ñëw jël si ko biñ ñëwee Aboubacar ne yow mi yàlla yónni waaye mais kii ah moom dafa nekk na koo xam ne nii non déet avant Aboubacar di wax yeneen bi dafa jël Aboubachir delloo leen ko Aboubachir na waaye waaye bu leen ma delloo ci kéefir ga waaye yonent bi na ah non delloo delloo rek loolu la ñu siñente woon ñu demee demee dem ba ci yoon ba di ni bi Madina abi Bachir di xool kenn ci ñoom rek xam naa ne caamin la ah astafurlah du ma tooñ sama mbokk caamin yi caamin du nekk ab ab yéeféer buy jënd ki waaw caamin yi ñu baax la ñu yàlla ñu yàlla boole ñoom ci àjjana yi ala kulli xaal daal da koo nax xool ko rek ak jaasin bi mu ne ko seet tet tet tet su jaasi ji rafet na de waa ji daal di bocc ci jaasi ji ne ko xamoo ci dara sax kii lay musuma ciy dóor nit du dul nangam na abu Bachir da ko waaye moo xool waay rek waaj jël jaasi ji jox ko rek muur cor bopp bopp waaj bi mu coree bopp bi rek ki ci des buddeeku Aboubacar topp ci gannaawam Abou Bachir topp ci gannaawam ba njëkk si biir Madina alors biñ ñëwee yonent bi Aboubacar daan ne eh yow mi yàlla yónni yow la nga siñante woon def nga ko jël si nañ ko jox nga leen bàyyi ko yonent bi ne déedéet déedéet déedéet daal dina cey jàmbaar ji cey bu amoon ku ko dimbali cey bu amoon ku ko dimbali Abou Bachir xam ne yonent bi da ko nar a delloo mu daal di génn Madina dem yoonam génn dem. dem ca frontière bi nga xam ne ci fa la waa Makka di jaar pour dem Syrie ca boori géej mu daal di dal foofu jeunes yu Makka yi dégg histoire bi ku dawee ci Makka rek ci fekk da ngaa gëm yàlla au lieu nga dem Madina nga fekk Abu Bachir bañ fa nekkee benn groupe waa Quraysh fu ñu génn di jëggi rek Abu Bachir ak mboolam dajale leen rey leen nangu seenu jëgg mujj ñu daal di dellu ca Madina eh Muhammad xam lu ñuy wax ku dawati téye ko yaa yaa ngi dégg ku dawati ñëw téye ko waaye kon ñu gis ni avant loolu di am bari woon na ay ndaw ñu bëggoon dund seen diine seeni parents tëj leen ci biir yi nekk bu ñu xëyee suba yóbbu leen da ngeen di sujjutal xërëm yi par force ah duñ leen bàyyi ñu julli ila axiri suñu borom nee na bu dee ñii de ñoom taxul may wax ñu mel nii ñoom yàlla subhanahu wa taala baal na leen ndax yàlla koy jéggale la te yàlla koy bale la suñu borom nag wëlbati ko ñaaxaate mu ne képp koo xam ni génn nga sa kër dem gàddaay ci yàlla rek a tax ngay gàddaay suñu borom nee na danaa la xéewalal ba say noon kon ba say noon mer muraxaman danaa la xéewalal ba say noon mer danaa la indil ak yaatu ca loolu it mbokk la sahabatul kiram defoon keroog bañ nekkee makka nekk fa ay sàmm amuñu dara yàlla dogal ñu gàddaay dem madina ca la leen yàlla faratal jihaad ñu mujj jiite la ëpp ci àdduna bi nekk ay buur kon suñu borom it wëlbatikuwaat ne ki nga xam ne këram la génne jëm di dem di gàddaay far yàlla dogal mu faatu fekk ne kenn ci saxaaba yi moo feebar ba sonn waaye mu ne ay mbokkam bàyyi leen ma damay dem gàddaay ñu ne ko mais sa feebar bi danga ko mën a ànd ak gàddaay mu ne déet bàyyi leen ma rek damay dem ba mu génnee Makka dem ba fi ñuy tudde Tan'im mu daal di fay daanu daal di fay faatu gaa yi na ah kii day moom ak gàddaayam moom amu ca dara suñu borom ne déedéet ki génne këram jëm di gàddaay ci yoonu yàlla dee daal di koy dab ku mel noonu day na xam ne ak payam rot na ca yàlla ca loolu itamit mbokk nañu xam ne gàddaay googee yonente bi alayhi salatu wasalaam daana wax la hijrata baad al fath walakin jihadun wa niya jóge màkka ñëw madina loolu amatul li am rek mooy jihaad ak niya waaye gàddaay place bu bon jëm place bu baax loolee du deñ ba ila yawmi din ngal la waay mbokk julit julit na war naa gàddaay am réewam dem ci beneen réew ngir mën faa jaamu yàlla nit ki war naa mën a gàddaay ab dëkk jëm ci beneen dëkk ngir mën faa jaamu yàlla nit ki mën naa gàddaay kër dem ci beneen kër ngir mën faa jaamu yàlla ca jóge ci dëkk bu bon jëm ci dëkk bu baax loolee ci gàddaay yi gën a kawe la bokk amul kenn ci yéen jàpp naa ko musul dégg waa ji reyoon téeméeri bakkan téeméeri bakkan ba mu dajeeg benn borom xam-xam ne ko damaa bëgg a tuub mu ne ko ah kay mën ngaa tuub waaye nag dëkk bii nga nekk dëkk bu bon la da ngay gàddaay yi demal parcelle parcelle de boo demee ñu baax a nga fa ànd ak ñoom jaamu yàlla ca mbokk fa lillahi alhamdu ñun waa parcelle ñu ngi sant yàlla de diine ji am parcelle day yàlla na yàlla def ñu muurloo ko RFI ci boppam mas na ci def benn reportage bu mag ci affaire salafisme ñu wax ne bokk na Sénégal ñu fa gën a nekk affaire yi wax salafisme sant salafisme mooy parcelle yàlla nañu yàlla musal seen lammiñ yi ndax booba docteur Mouhamed Lo mi ngi parcelle Ibrahima Khalil Lo mi ngi parcelle ñoom Adja Binta Thiaw ñu ngi parcelle ñoom ñëpp taxu nañ dem ñu fi des ñal na yàlla def leen ñu nuuru waa parcelle yaa ngi dégg waaye bokk parcelle alhamdulillah li fi yàlla def ci jataay yi xam-xam def ko ci ay daara def ko ci ay nit ñuy góorgóorlu bi sunna amul benn quartier ci Dakar wax ak Sénégal bu ñu koy méngale kon loolu moo tax ku fi yàlla wërsëgal nga dëkk fi santal yàlla ku yàlla mën a wërsëgal nga jóge feneen dëkk si fi santal yàlla ca walilahi alhamd wallahi aka bari aka bari ay nit ñoo xam ne nii xemmem parcelle moo tax tuxoowuñu fi mi nga noonu maa ngi ci wax ca kenn koo xam ne nii matagul sax 15 jours di ko wax naan waaw seen kër noom am nay place ndox doo fa nit bi mën a hoo bàyyi ma rek ma continuer dëkk parcelle gis ngeen bari na fi ay ñoo xam ne nii ay moyens yi ñu am pour tuxu loolu yomb na leen lool mais bañ a sori parcelle moo tax ñu dëkk parcelle loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax al muhim ku nekk war naa xool dëkkuwaay bu ci def priorité classe dëkk ba priorité ay wér-gi-yaram priorité ay nangam waaye jullit fépp fu muy dëkk lay war a doon priorité am mooy fan la sama diine gën a ñoŋee loolu la nit war a séntu ci dëkk waayam borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne ay yéen jullit ñi képp koo xam ne yéen a ngi jóg di tukki ci yoonu yàlla su boobaa am ngeen droit wàññi julli su ngeen ragalee yéeféer yi fitnaal leen loolu mooy li alquran wax waaye yonent bi lam daan jëfe moom heure bu daan tukki même tukki ba bu nekkul tukki boo xam ne tukki jihaat la day wàññi julli ba baa muy dellu Omar ibnul Xattaab ne ko waaw yow mi yàlla yónni lu tax ñun ñuy wàññi julli fekk ñi nga ànd ak kóolite mu ne ko ah Omar lii day sadaqatun tasaddaqa allahu biha aleykum faqbalu sadaqata yàlla subhanahu wa taala mënul ko sarax jël leen ko loolu it moo tax ba fuqaha yi dëppoo nañu dëppoo nañu ci ne ki nga xam ne daa nekk ci tukki yi fii mi ngi dem ci tukki bi am na droit di wàññi julli dëkk ba mu dem bu dee naru faa def lu ëpp ñeenti fan am na droit wàññi julli loolu moom dëppoo nañ ci mu des nag ixtilaaf ba ñu am. temps bi nga xam ne distance bi tukki bi war a am ak it la nga xamee ni mooy temps ba nga fay def mi nga noonu la ëpp ci ñoom ña ngi ko tënk ci loolu am maa nag am na benn waay buy wax ci rajo bi naan équipe nationale bi nga xam ne dañuy dem pour défendre pays bi dëkk bañ dem bu ñuy football mën nañoo bañ a woor mbokk kooku moo fi wax nee na xale bu góor ak xale bu jigéen bu ngeen dajee ci mbedd man ngeen daal di jox d'accord ngeen sëy sëy leen mi ngi noonu consentement bi rek moo ci am solo même boo bu dee nekku leen fu ngeen nekk boo ko yónnee SMS ndax bëgg naa la mu ne bëgg naa la bu ngeen dajee sëy leen amul bàyyi amul dara amul dara kooku moo wax ci rajo bi ngeen dégg su ko defee kon bu naan jour yi comme da ngeen di dem di défendre war ngeen mën ngeen dem foofu man lu man un mois sax bu leen toogee bu leen woor ngir loolu mbokk lay bi loolu kenn du ko layee ab football du tax doomu aadama ji dokkooram loolee ngal la waay ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon xéewalu yàlla subhanahu wa taala mi ngi noonu booy tukki bu la neexee bañ a woor booy tukki bu la neexee wàññi say julli allahuma lu dul bu dee dem nga nag fa nga ba yegg fa te mu wóor na la ne fas yéene naa fee def lu ëpp ñeenti fan la gën a mucc ci sa diine mooy commencer woor commencer matal say julli yàlla na yàlla dëpp la ñoo ngërëmam àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waa ji nga xam ne dafa rey nit ci suñu réew yi ñu jël ko tëj ko ab diir bañ ko tëj te moom amul kattan bu mu goree la jaam wala bu mu joxee diir ala kulli xaal suñu boroom tegul benn bakkan lu dul lam attan wax naa la sànq ni diye boobu bu doonte ne organisation l'islam am na doomu aadama bi dañuy xool ñan ñoo fi ay mbokkam mbokkam yooyu ñu woo leen séddale leen diye bi doonte ne ne xam ngeen mbokk ak mbokk tasaaroo na léegi nit ñi amatuñu ay mbokk yu ñu jokkaloo bu doon bu jëkk nag wala nga demoon tey léegi ci àll bi léegi àll Sénégal Fuuta da ngay gis ku nekk fa mu bokk ñëpp xam nañ leen xamante nañ loolu bu boobaa ñoom lañ koy teg amaa na bu dee dëkk mel ne Ndakaaru rey nga nit ki ca amu loo xam ne moom nga rey la nga xam ne moom nga man rek mooy li suñu borom wax ndax loo xam ne sax leeru luñ ko ci tafsir bi suñu borom dane illa an yasaddaqu mooy diye boobu nañ ko jël lu dul ñoom ñu bale ca bale googa famille bi bale suñu borom mi ngi ñuy wax ci yeneen aaya wa an tasaddaqu xayrun lakum ngeen bale moo gën ñeel leen su ko defee war ngaa dem ca ñañ reyal ka nga xam ne da nga leen reyal toroxlu ci ñoom ñaan leen ne leen nañ la baal suñ la baalee moom diye ba teggeeku na la amma jaam ba ngay goreel amuloo ko loolay moom amuloo ko la ci borom bi teg mooy wooral ñaari weer yoo xam ne yu tegaloo la ñaari weer yu tegaloo yoo xam ne nii li tax nga koy dog mooy li tax ngay dog weeru koor heure boo ko dogee ca ngant bi tax ngay dog weeru koor du loolu su boobaa da ngay recommencer waat à zéro loolu daal mooy la nga xam ne kon moom nga man ci wàllu googee boole it di ñaan yàlla nañ dund baatib lislaam saxaat suñu réew mi ngi noonu non ah koo xam ne nii dafa rey yéeféer kookee la nga xam ne moo ko waroon mooy diya diya ba nga xamee ne nii bu dee ne dañoo siq ak ñoom kóllëre dëkk bi nekk na siq ak jullit ñi kóllëre muy yéeféer la dañ ko jox diyaam bu dee ne nag koo xam ne séqu ñoom benn kóllëre su boobaa yow dara du la war ci loolu amul diye boo leen jox amul jaam boo xam ne moom ngay goreel atte ba yàlla doon wax mooy jullit buy dëkk ci biir yéeféer mi ngi noonu wallahu subhanaka wa alam naam
nit koo xam ne ki da wax wax yu rek ñu fiir sarjaan daal ñu ne suñ koy kon
ki doon wax ak nit rek far nit ka crise cardiaque daanu dee ala kulli xaal rey moom buñ ko waxee rek day doon acte bu jóge ci doomu aadama yi jëf bu doomu aadama yi jëf waaye bu dee wax kese loolee duñ ca acte nit ki.
maanaam su benn mbokk bi rek yooyu mu mu dal gis.
waaw loolee moom dañuy gis ne moom yow loolee nekkul sabab benn sabab boo xam ne buy war a mën a rey nit la moom dañuy gis ne moom moo feebar rek feebaram boobee ca la ñu koy attee mais duñ atte waa ji ne yow yaa jublu rey ko ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw ndax ki kooram yàqu day continuer lekk ak naan wala déet déedéet ku mel noonu day continuer kooram lu dul soxna si nga xam ni kooram dafa yàqu ci gis baax ak ngi dem mi ngi noonu amma bu dee ne koor gi dafa yàqu ci mbir moo xam ne yaa ko tey danga demoon hôpital médecin bi ne la fokk garab bi nga jël ko nga jël garab gi daal di koy nekk nekk di di di lekk su boobaa lañu gis suubu yàqu na maa ngi jublu ci li ma la jëkk a wax koo xam ni dafa juum mooy da ngaa juum sa koor yàqu su boobaa da ngay continuer koor gi borom xam-xam yi kay fa ñu wuutee mooy ndax da ngay fayam doo fay loolu nag bokkul ak koor goo xam ne nii dafa am ngant bu tax nga yàq ko mooy médecin moo ne la fokk nga dog mi ngi noonu wala nga nekkoon ci loo xam ne nii ab tukki la ci la borom xam-xam yi jàpp ni nit ki mën nga woor sos tukki sax dog koor gi wala loo xam ne nii jigéen bu baax dab su boobaa lu mel noonu mën ngaa continuer lekk ak naan wallahu alam na ndax jigéen bi baaxam jeex tisbaar am na borom xam-xam yu ne dafa war a jàpp desutu bëccëg bi waaye la gën a dëgër ca loolu lañ gën a jàpp ñun mooy maadaama bis boobu doon bisu koor ci moom mën naa continuer lekk ak naan ba di bis jot mi ngi noonu même ba baax ba jeexoon sept heures sax waaye fekk na jant bi fenk na su boobaa da ngay gis mën na continuer lekk ak naan bisam boobu yépp boo demoon nag ci mazhabu ahmad ak ji demoon noonu ñoom dañ naan la day jàpp ne su te bis bi wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam naam
dañ koy bari ñu koy ñaan ci weeru koor bi ci ndawal bi nga dem ci bi mais te bu ko déglu boobu léegi may fàttali rek salaamaaleykum.
wa ala kulli xaal rasul sallallahu alayhi wa sallam daana wax ñuy baril ci guddi weeru koor di ñaan allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ndax julit moom guddi weeru koor yépp da koo war a def guddeeg laylatul qadr soo ko defee rek da nga dëpp ak laylatul qadr laylatul qadr wax nañ ci ñiin fukki wax ak nangam su ko defee yow soo bëggee rek dëpp ak moom guddi gu nekk rek jàppale tey la laylatul qadr te yonent bi waxoon na suñu ay Aïcha boo dëppee ak laylatul qadr da ngay ñaan ñaan googu allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna naam bismillah waaw mbokk bi waaw waaleykum salaam wa rahmatulah waaw.
léegi dañ dafa yoroon léegi oto bi muy dawal ci liñ natt rek ñeneen dañ ko doon dàq mooy chauffeur yi ñoo ko doon dàq léegi mu dawal ba dal ci garab léegi benn bakkan faatu moom nag am na intérêt ndax bakkan boobu faatu moom ci ci ban fokk mu ci yore léegi.
ki nga xam ne nii dafay yoroon oto di daw ba dóor ko fenn am ñu ca dee dañ koy boole ci ñi rey nit ca teyuñu ko moom moo sabab bi moo rey nit ca teyuñu ko loolu mi ngi noonu la nga xam ne moom lay def policier yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko doon dàq bañ koy dàq dàquñu ko woon pour mu rey boppam dañ ko doon dàq pour jàpp ko moom ma xam ne nag moo def ay defoom ba dóoru oto bi ci garab ku mel noonu rey na nit rey goo xam ne amu ca benn bakkaar waaye nag bokk na lu ko sharia di teg muy jaamu yàlla guñ koy teg mooy moom dana joxe diya rey nit koo xam ne teyu ko mi ngi noonu wallahu subhanahu waaw kon ñu mujjee ci mbokk bi rek bismillah waaw ah pikiir lu yàqu koor pikiir lu yàqu koor lii yàqu koor muy perfusion bu lay dolli lu mel ne deret wala di la dolli ndox mi ngi noonu mais bu doon perfusion bi sax dafa yem ci pikiir boo xam ne dañ koo jaarale ci perfusion loolu yàqul koor mooy daal fokk perfusion bi doon loo xam ne dalay dolli kattan comme na lekk nga waroon a def mais bu yemee ci pikiir kese ay wala ay vaccination yu demee noonu loolee moom dañuy gis du yàqu koor wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain